Déthié Faye coordonnateur pôle non aligné ci dialogue politique bi sëñ bi Faye ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM. Euh, maa ngi leen di fay di leen sant di leen gërëm ci invitation bi. Mhm. waxtaan wi dañu koy door ak jafe-jafe gi ñeel primo votant yi maanaam ñi nga xam ne mosuñoo wote te war a bindu ci list yi am ci gàllankoor ndax am carte d'identité ci délai bi nimu mu toll jafe leen lool yéen loola lu ci seen gis-gis yéen non aligné yi. waaw euh, loolu day euh, suñu gis-gis moom bu bu leer la ndax euh, dañu jàpp ne li ñu war a def mooy bépp pexe boo xam ne war naa mën a tax citoyen sénégalais bi mën a bokk ci wote pexe boobu dañ ko war a dañ ko war a doxal ci kaw loolu war nañu nag fàttali ne Euh, mbiru primo votant yi eh, yàgg na pose problème ci Sénégal ndax euh, bu ngeen ko fàttalikoo en 2016 bi ñuy def euh, refonte du fichier électoral problème boobu posé woon na ba tax na ñu daje woon ak président de la république ci manko watu Sénégal bi ñu dajee ak moom ñu waxoon ko ne su fekkee ne ñu yeneen i pexe. dana am ndaw ñu bëri ñoo xam ne amuñu carte d'identité te kon duñu mën a bokk ci wote bi ñu jëm mu nekk élection présidentielle ci kaw loolu ñu amoon ci moom mu jël mesure transitoire exceptionnelle boo xam ne dafay euh, randal li nga xam ne moom la loi bi wax pour mën a may ñooñu ñu mën a bindu euh, loolu moo taxoon primo votant yooyu euh, doon dem directement ak seen kayitu juddu nga xam ne kayitu juddu bi boo ko ñëwee dinañ la daal di mën a dugal ci fichier électoral bi nga amaale carte loolu bi mu passé élection présidentielle boobu seetlu nañ ci ne am na ñu bëree bëree bëri ñoo xam ne ay xale lañu woon yoo xam ne boo leen ji rek nga xam ne ñiy wax dëgg yàlla xaw ma fu ñu jaar ba am carte électeur waaye ñii moom ay xale la amaguñu dix huit ans. Hmm. waaye kenn mënu leen woon terewate ndax am nañu seen carte électeur. Hmm. bi loolu passé ñu def audit du fichier électoral bi ñu ko audité auditeurs yi ci seen bopp wax ne kayitu judd yi ni nga xam ne noonu lañu koy joxe am na ci yu bëri yoo xam ne ay faux la baaxul ay trafic ñoo ci dugg pour rek ñu mën a fexe ba am ñoo xam ne dañ lay woteel ñu wax na kon war nañu gën a euh, fexe ba ni ñuy joxe kayitu judd yi ñu gën ko sécuriser. ba nga xam ne fraude yi nga xam ne moom lañ ci seetu dootul mën a am ñu waxoon itam ñoom auditeurs yi ne euh, képp koo xam ne bëggati ngaa dugg ci liste électorale yi dangaa war a présenter d'abord sa carte d'identité biométrique CEDEAO loolu yëpp nit ñi gis ko mais nun terewul bi nga xamee ne waxtaan nañ ci dialogue politique bi li ñu recommandé woon nun mooy exceptionnellement comme toog nañu lu mat ñaari at yoo xam ne kenn deful révision exceptionnelle des listes am na ndaw ñu bëree bëree bëri bëgg nañoo bokk ci liste électorale yi te amaguñu kayitu ju carte d'identité kon ñooñu nañu may commissariat yi ak gendarmerie yi nit ñi dem déposer foofu pour am carte d'identité mais boo déposer ci bés bi ñu jox récépissé bi ñu la jox da ngay jóge ci commissariat bi rek dem directement ci commission administrative bi bi bind ci liste électorale yi hmm. nga xam ne boo présenté sa récépissé ñu mën laa dugal ci liste électorale yi loolu avantage bi moo nekk lan mooy ñi nekk ci commission révision yi ñoomu ñooñu jàng euh, formé wuñu leen pour bu ñu gisee kayitu juddu bu ja bu baax ak bu baaxul ñu mën koo xàmmee waaye boo demee gendarmerie ak police boo fa yóbboo kayit bu baaxul ñoom dañ ko daal di mën a xam ne lii baaxul mhm. delloo la ko wala même su fekkee ne jàpp nañ ne fraude la mën nañ sax téye donc ñu ne bu fekkee ne nit ki dafa njëkk a jaar police wala gendarmerie euh, sàcc bi ñuy ragal dootu ci am kon na jaar foofu ñu jëfee ko récépissé mu dem fële malheureusement euh, bi ñu defee proposion boobu euh, état bi euh, àndu ci moo tax tey jafe-jafe yi am gàllankoor yi am alors que loolu ñu waxoon ne nañ ko def bu ñu ko defoon nit ñi dinañ mën a am seen carte d'identité am seen carte électeur te euh, benn njuuj njaaj benn labaj du ci du ci mën a am. ñenn ci opposition bi nag li ñu euh, euh, jàpp foofu mooy ni nguur gi dafa doxalee nu ni mel ngir bañ ndaw yi wote ndax xam nañu ni ndaw yu bari ànduñu ak ñoom yéen itam loolu ngeen jàpp ni moo ko waral. noonu li ñu jàpp mooy démocratie nekkul ngay xool ku ànd ak man ak ku àndul ak man ak foo mën a féete démocratie lan la mooy xool yan pexe. yu jaadu lan ni mën a doxal ba képp koo xam ne bëgg ngaa wote nga mën a wote kon yaakaar ngeen ni bëgg a éliminer ndaw ñi moo tax ñu bañ yéen li ngeen proposé waaw cest à xam nga ndaw ñooñu ñàkk nekk démocrate moo mën a tax nit xalaat ne ndaw ñi ànduñu ak man hmm. wala ñàkk nekk démocrate moo mën a tax nit xalaat ne ndaw ñi man la ñu àndal parce que ñooñu kenn xamul bu ëllëgee fan la ñuy wote hmm. li war li jaadu rek mooy xam ne ay citoyen lañu citoyen yooyu war nañ leen a mën a yombalal pour ñu am seen carte électeur hmm. bu ñu amee seen carte électeur ku leen neex ñu woteel loolu mooy démocratie hmm. waaye démocratie boo xam ne nit ñi dañuy war a segg naan kii boo sàgganee bu ma ko joxee kayit bii euh, day wote contre man hmm. loolu du démocratie te du loo xam ne lii day euh, dëgëral euh, doxaliinu réew bu weesoo primo votant yi certificat de résidence itam euh, doon na jafe-jafe tey euh, li ñeel mbindu mi ndax am na maire yoo xam ni ñoom ñoo euh, te yëf yi ni ñoom rek ñoo ko mën a joxe ñeneen tam gis ni xëy na ña ngi koy joxe feneen ci anam yu jaarul yoon mbirum certificat de résidence yooyu yéen lu ci seen taxawaay. waaw certificat de résidence yi li li indi li indi coow li yëpp mooy dañ ko jox. Euh, maire yi ñoom ñoo ko war a joxe te maire yi ku ci nekk ñu ci bëri bokk mm-hmm. au lieu kon ñu xool lan mooy lan lan la loi bi wax ñu respecté ko dañuy xool lan la ñu xalaat ne moo leen arrangé bu ñu gisee ne ñii xalaat nañu ñoom ci seen ñaaw njor ne ñii ànduñu ak euh, maire bi ñooña kenn mënta fexe ba ñu am certificat de résidence te loolu xam nga moom moo jaaduwul. Mm-hmm. bu fekkee ne nag gis ngeen ñun ay nit ñoo xam ne xalaat nañ ne ñii moom maire bi la ñu àndal mair bi day gaawantu pour defal leen kayit même ñooñu bu fekkee ne dëkkuñu ca ca commune ba. kon kon moo kon mbirum certificat de résidence yi mun na indi fraude ci élection yi notamment à travers euh, euh, transfert d'électeurs yi. comment. ma ne mun na indi fraude kon ci élection yi ak transfert euh, d'électeurs yi. loolu kay loolu kay déjà fraude la parce que bu fekkee ne man damaa nekk candidat. ah nekk maire am ñu am ay adversaires yu bëri yoo xam ne déclaré wu nañu ma tiit jaaxle te gëmuma démocratie nekk ci ñoo xam ne ñi dëkkuñu sama commune may fexe ba ñu ñëw pour ma jox leen ay certificat ndax ñu mën a wote foofu xa foofu foofu fraude bi foofu la tàmbale. waa kon ndax dialogue bi échoué wul ñu bari sax loola la ñu wax ndax nee nu yii jafe-jafe mënoon ngeen koo saafara ba ngeen toogee di waxtaan. Euh, euh, yan jafe-jafe maire maire maire boo xam ne maire boo xam ne da da day day sàcc kayit. loolu certificat de résidence yi mënoo leen ko woon ah? waxtaanee foofa ak primu votant ba am ci solution. comment ma ne mbirum certificat de résidence yi munoo leen ko woon waxtaanee ba am ci solution ak primo votant yi ñu bari nag jàpp nañ ne gannaaw loola amul dialogue bi moom njariñam bariwut. Euh, c'est-à-dire mbiru primo votant yi. Mm. du loi bi lim ci wax lu leer la il faut pas nit ñi indi ay jaxase nit ñi loi bi lim wax lu leer la c'est-à-dire acteur politiques yi ñoom ñoo demande non pas la modification de mais une mesure transitoire mesure transitoire bi moom bokk na ci lii nga xam ne moom lañ la wax mesure transitoire bi nga xam ne moom la ñu laajoon président de la république en 2016 ba ñu ko doxalee jëye la fi indi ndax dafa may ay ay xale yu ndaw. ñu dafa leen ay kayit mhm. électeur ñu dem. ab eh, ki nga xam ne nag maire la nga xam ne moom xoolul luy doxal démocratie xoolul yoon deful dara moom sàcc la bëgg a def pour mën a toogaat. kooku juboo bu nit ñi mën a juboo ginnaaw loi bi na ko ñii bu ñu ñëwee nanga leen jox. Mhm. Eh, certificat de résidence maire bi bañ loolu ci loolu ci dialogue politique bi moom dialogue politique bi day dem tëj ko ci kaso bi. nit ñi confusion la ñuy def confusion la ñuy def dialogue politique bi liggéey bu mu liggéey liggéey bu mucc ayib la bu fekkoon ne nit ñi respecté nañu li nga xam ne moom la ñu recommandé quand mu concerne la l' aspect politique l' aspect droits humains et autres lépp ñu respecté ko kon démocratie Sénégal dina gën a taxaw hmm. waaye am na ñoo xam ne ñoom jëm Sénégal jëm kanam ñoru leen la leen ñorop mooy poste ba ñu téye naka la ñuy def ba garder ko loolu nag bu fekkee ne euh, bu fekkee ne ab maire fu mu sàcce ab maire fu mu jalgatee ab maire fu mu joxe faux faux document dañuy wax ne dialogue politique bi dafa échoué non parce que foo document am na fu ñu koy régler boo sàccee am na fu ñu koy régler mhm. mais boo sàccee ka koy faj c'est pas le dialogue politique boo def joxe un faux document ñu xam ne kii faux document la ka ko mën a régler teg la ci yoon kooka c'est pas le dialogue politique le dialogue politique trace la la voie a été clairement tracée il faut que nit ñi respecter li nga xam ne moom la nit ñi déggoo ci dialogue politique bi. Mhm. ñu wax euh, jeexal ak ponk bi nga xam ne moo ñeel euh, caution bi àjjuma bi di ñëw le ministre de l' intérieur woote ndaje ngir ngeen waxtaanee ko ñu bari nag jàpp ne caution bi dañ ko war a yombalal ñi nga xam ne ñooy bokk ci élection yi rawatina ak locales yi di liste yi yéen non aligné yi luy seen xalaat ci mbiram caution bi. waaw ñun suñu xalaat mooy euh, caution bi. bu fekkee ne euh, nun euh, Sénégal dañoo bëgg suñu démocratie nekk une démocratie boo dal nit ñi mën mën di woote bu ci ëllëg saa ñu dem liggéey lépp loo xam ne xeetu gàllankoor la boo xam ne teguñu ko ci lenn loo xam ne lu sell la dañ ko lu mu ci mën a doon rek dañ ko war a dindi moo tax caution bi ñu wax ne dès l'instant que loi bi nee na caution dafay am kon nañ ko def montant boo xam ne du doon pexe pour gàllankoor ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a bokk ci wote bi te population yi am ci ñoom confiance hmm. ci kaw loolu la ñu wax ne élection pour maire yi caution bi warta mën a weesu cinq millions pour conseil départementaux yi eh, caution bi warta mën a weesu cinq millions boo ko boolee donc caution pour participer ci élection locale yi warta mën a seer a seer ba weesu dix millions su ko defee boo xasee fu gasee sa caution li collectivité locale yoo bëgg bokk rek man am nga sañ-sañu bokk ci. Hmm. waaye bu fekkee ne li nga xam ne moom la ñeneen ñi di proposer ay ay vingt millions par par ci commune vingt millions par ci département yi bu fekkee ne yu mel noonu la loolu moom doonatul taxawal euh, dara jaal démocratie mais suufeel ko nërmeel ko fexe ba euh, ñi nga xam ne ñi nit ñi am nañ ci ñoom yaakaar dès l'instant que ñoom hmm, seen doole demewul noonu ñu bañ a bokk ci élection yi euh, loolu lay tekki te loolu euh, bokkul ak liy taaral démocratie. Mhm. yaakaar ngeen ñu topp leen bi lay blé yoon ci seen proposition boobu ñeel caution bi. ah yaakaar nañu yaakaar nañu de ne ñu war a mën a topp ndax sénégalais yi buñ ko déggee danañ xam ne wax dëgg yàlla lii lu yenu maanaa la lu yenu maanaa nag boo jiitee fu ñu ko fu mu war a fu mu jóge boo ko déggee rek war nga caa mën a ànd hmm. xam ne lii moom mooy dooleel suñu démocratie lii moom moo ñuy may ay élection yoo xam ne élection yu dal lay doon bu keroogee ñu wote ca suba sa ku ne dem liggéeyi koo xam ne kii yow na nit ñu wote collectivité locale yi hmm. du diiru juróomi at jërëjëf Déthié Faye Paul non aligné ci dialogue politique bi ngeen jëf